Ibrahima Lissa Faye nuyu nañ la di la dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM tey ci suba gi. Euh, maa leen di fay di leen euh, remercier. taskatu xibaar nga blogueur yaa sant fondé kon euh, site d'information bi di presse Afrique en ligne naka noonu yaa jiite kuréel gi ëmb ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllum site d'information. bu yàggul dara nag ayu bés gi ñu génn rek euh, daal di ngay euh, bind ab leetar jagleel ko jëriñ ñu dénk wàllum tourisme di Mame Mbaye Niang gannaaw euh, ab mbir bu ko boole ak suñu ay naataango yu nekk ci site bii di Allo Dakar lim leen di toppee mooy wàllum diffamation lan moo tax yow nga préfère intervenir ci boobule affaire bind boobu lettre boobule kilifa. dama intervenir ndaxte ñoom ñi nga xam te ne ñooy waa Allo Dakar dañoo tooñ dañoo baalu kii di Mame Mbaye Niang mhm. ba pare dindi euh, li nga xam te ne mooy article boobu andi woon jafe-jafe yi donc buñ ko dindee ba pare baalu euh, ñaan njekk pour man li euh, li délit bi même bu dee consommé nañ ko aussi war na mën a jeex war na mën a jeex léegi nag aussi li ci am ba am mooy que ne ay ndaw lañu waaye bu ñu deful dara mbir mi instruction lañ ko yóbbu ko xam instruction mooy maanaam bu ñu deful attention mën nañ def six mois de kaso bu ñu doog a saytu seen dossier et boobaa dinañ yàqule lu bëri et aussi seen famille ñu mën a tàgg témbe moo tax ma ne kat man par rapport ak euh, li may rôle bi may joué ci écosystème numérique euh, économie numérique bind kii di Mame Mbaye Niang pour jéggalu et di ko ñaan mu retiré plaintam baal ñooñu xale yi ñu mën a dellu seen i kër Mhm. parce que directeur boobu la sit sax ak ña muy àndal ci liggéey ba daanaka jamono yi ñu ngi nungu siin waaye monsieur Faye laaj bi mooy lu bëri jamono yi fii ci Sénégal dañuy gis ni suñu ay naataango yu nekk ci siti moo xam ay tiktokeur wala ay youtubeur dañ leen di teg loxo di leen toppee wàllum diffamation wala li ñuy wax diffusion de fausses nouvelles parce que dañuy jàpp vie wu nit xëj na di ci wax loo xamante ni amul la ba loola di leen indil ay problème lan moo indi loolu tey fiñ ci toll mais li ko andi mooy euh, d'abord ay nit lañ ñoo xamante ni ñu trop xamuñu li nga xamante ni mooy règle journalistique yi et dañoo du ci métier bi ngir wutum alal. Mhm. la part du gain. et ku ne xam na ne en fait boo waxee ci ministre walla nga wax ci koo xam ne fiiw na am na daraja tuuti. bë da ngay def buzz nit ñi lu ñu gën a cliquer lu ñu gën a suivre. Euh, publication yi nga gën ci gagné bu weer bi deewee ak Google ba tax na en fait euh, ñoom ñu jël yenn risque yi di def ci di def yenn ñoom yooyu mais li ñuy war a xam mooy que ne euh, vie privée ni dafa sacré sacré boo xam te ne heure boo ci duggee rek lu ne mën na la ci fekk parce que ku sañoon aussi doo doo nangu ni sa ndey di sa baay wala koo xam ne ku la jege trop la waajur bu la jege trop ñuy jël yenn yi di ko yegg ci kawam et donc ne na loo xam te ne yooyu waroo ko mën a jël di ko teg ci kaw nit parce que dafa yenewul maanaam et it aussi euh, euh, du mhm. euh, ñu dénk wàllum communication Moussa Bocar Thiam jaar na ci pencum ndaw réew mi joxe fa ay chiffres. li mu wax nag ci site internet yi moom dafa jéggi dayoo ndax seenub lim daanaka mënuñ koo def wàññi ko ci ay baaraamu loxo te lu ci ëpp ci ñoom nag mën nañoo wax ni ils sont dans le non sérieux li ñuy def amul bopp amul gen wala sax ñuy def li nga wax rek di wàllum buzz en tant que ki jiite appel yow ban saafara nga gis ni war nañ ko amal ngir uh, li nga xamante ni mën nañoo wax ni pëccëxoo la mu daal di dakk bon pëccëxoo bi ngay wax ni man je pense que du le du ñëpp du ñëpp et puis aussi it li euh, ñu ko yaakaaree mën na bañ a demee noonu. Mhm. waaw mbir mi nag aussi euh, képp koo yaakaar ni maanaam mën nga def lu la neex te dara du la ci fekk yaa ngi ndax sa bopp ndaxte jamono jii nii moom euh, ci internet yi képp ku def ñoom ku nekk mën nañu localisé xam fa nga nekk jël si la man am ci am ba te moom li mu wax noonu man jaaxal na ma trop fan la jëlee chiffre yooyu ndaxte ci wàllu presse en ligne moom mënuñu wax nag mhm. internet ndax lu tax te ministre bi ñaari euh, kii ñaari moyen pour maanaam am li mu site yooyu la am mooy d'abord li nga xam ne mooy fonds d'appui bi nga xam ne balaa nga ci jot foo nga déposer dossier ñu saytu ko valider ko pour nga mën ci jot loolu gëw ma ne euh, quatre cent sites déposé nañ ci pour mën ci am yaakaaruma ko sax et it aussi mooy li ñuy wax déclaration d'existence li nga xamante ne moom la yépp bëgg créer titre wala créer entreprise de presse ñu war ko déposer au ministère de la communication ci li code bi santaane et léegi gëwuma ne yi quatre cent sites euh, déposé nañ pour maanaam am pour mën a euh, exister au niveau national et même boo boolee ñaari lim yooyu sax mu di euh, fond yi bi ak déclaration de gis naa sax gëwuma mu mat quatre cent ndax lu tax loolu parce que boo xoolee Sénégal depuis ay at ay jamono gi nii Euh, site yu bëri dañu nekk di tëj di basculer ci YouTube bi ndaxte en fait site dafa bëri charge et am-am bi demeewul noonu te boo demee ci YouTube bi charge yu bëriwul te mën nga ci am xaalis ci lu gaaw gaaw surtout bu dee yow maanaam buzz ngay def ak fake news rapidement nga da ci am xaalis maintenant dina yàggool du yàgg yàgg loolooy problème bi mais moo tax man maa ma ne carrément ministre bi euh, chiffre yooyu mu avancé man gëwuma ko et pour man c'est même fantaisiste même la limite te leen li ci am ba am mooy que ne maanaam damay ne toujours que ministère de tutelle balaa muy avancé ni chiffre war na def au moins li ñuy wax recensement boobu maanaam mën a euh, saytu li nga xam ci ne mooy limu site yi limu rajo yi limu télé yi mu li nga xam ci ne mooy presse écrite bi ba mu leer naññ te ñu catégoriser ko ba mu leer naññ ba nga xam ci ne njuumte du ci am bu waxee tel chiffre ñëpp nañ ànd nag moom d'accord nekk ah chiffre dafay la yéwén dëgg la moo ci am parce que lii kat am na base scientifique boo xam te ne kenn du ko weddi kenn du ko tegg mais moom moo nekk ci ñoo waxtalu réew mi il doit être le mieux informé bu fekkente ne le chiffre qu'il a communiqué il l'a fait de façon hasardeuse il un problème yéen yow surtout tey jii ci wàllu lim lan nga téye muy lu dëgër loo xamante ni mën nañ koo natt ci wàllu site yi parce que ak luñ mën ci wax nag bëri nañ. xam nga jamono jii may wax ak yow dañuy waajal li ñuy wax assemblée Mm-hmm. et donc dañuy def des xoolaat suñu suñu lim ñi nga xam ne ñoo adhéré ci appel ak yooyu noonu ndaxte ñun boo xoolee soixante quatorze la woon y a une dizaine de sites yoo xam te ne dañoo dañoo dañoo arrêté dañoo bàyyi amatul. mais la déjà lan mooy condition pour adhérer à l' appel. condition pour adhérer à l' appel d' abord il faut avoir un contenu professionnel benn respecter li nga xam te ne moom la code bi wax saa à mooy recruter ñetti journalistes au minimum. Mm teg ci aussi euh, am ay locaux et également aussi euh, li nga xam te ne moom ngay produire mu nekk euh, régulière c'est-à-dire une production régulière dans le temps parce que doo ñëw rek day demander à des gens appel ñu accepté la parce que balaa ñu lay accepté foog ñu toog di xool yu surveiller si site ab diir pour xool ba xam effectivement que bi contenu bi kat contenu bu sérieux la et ci longue durée mm-hmm. très bien kon ni ma la ko waxee boo xoolee ba xool ñi nga xam xamante ne ñooy euh, membre yi euh, liste membre yi. yu mhm. ci bëri dañoo génn dañoo mënatuñu bokk ndaxte seen site existé tout et du tax seen site existé parce que mënatuñu faire face au change. wala mhm. boo am na ci ñoo xamante ne dañoo dem directement sur les réseaux sociaux dañoo dem directement sur YouTube. ñu bëri jàpp nañ ni nag site bëriwul charge wala demeewul noona non am am na ay charge mais même bu dee néew na par rapport ak quotidien par télé wala rajo sax néew na mais am na ay charge mhm. d' accord ñu ñëw ba tey ci ñoom seen fonctionnement site yi parce que lu ci ëpp li ñuy li ñuy wane ak di ko di ko jox euh, usager yi dañuy am impression que ni lépp la ñuy bàyyi mu jàll du ñu segg lan moo tax filtre boobu war cee am amu ci. mais xam nga li ñuy wax euh, xam nga li ñuy wax euh, site ci wàllu média la. Mhm. bu ñu nee wàllu média la. il faut que maanaam ñu def collecte traitement diffusion te ñett yooyu bu ci benn sooxee rek mën nañ jàpp ne maanaam nekkatul presque nekkatul wàllu média et ñi koy def lu ci bëri soit duñu ay professionnel xamuñu lu métier di tëddee wala boog ñiy def lu leen neex pour mën a am koppar bu bëri et muy ci euh, boo ci mën ci jël boo ko dee def correct mën na laa daan wala ci presque bi ñu euh, ñu daal di lay réprimander wala nga dem prison. Mm-hmm. wala nga dem prison donc loolu moom lu lu ci leer la maintenant nag aussi ñun suñu wàll bopp dañuy xeex li ñuy wax désinformation parce que ñii di jël euh, inform kii rumeur yooyu wala information ci réseaux sociaux wala ñu jox leen ko rek ñu jël ko rek dugal ko noonu te traité wuñ ko ñooñu ñu ngi indi jafe-jafe ci dëkk bi et vraiment aussi euh, ñu ngi yàq solos métier bi. Mm-hmm. seen kuréel gi. nga xam ne dafa ëmb ay professionnel ak administrateur site information est-ce que di ngeen di faral di amal ay ndaje ak i lël ngir ñaaxaate ak euh, teg ñi nga xam ne ñoo nekk ci circuit bi ci yoon maanaam ñax leen euh, ak euh, wax leen nan lañ war a doxalee. dañ koy lu di def wax def li ñuy wax maanaam plaidoyer di nekk ay atelier de formation ak ay conseils gratuits yoo xamante ne pour membres yi pour ñuy éviter yenn ndëgg sërëx yi mais pour ñuy éviter aussi yi maanaam di def loo xam ne mën na leen yóbbu prison wala mën na tëj seen site parce que aussi maa ngi wax léegi pare di wax euh, acteurs yi nekk ci métier aussi Google yi dafay nekk loo xam ne dafay wàcc si ba mu tëj yàq ko. Mhm. comme aussi Facebook tey day wàcc si site li nga xam ne mooy sa page. comme aussi euh, YouTube aussi et pareil donc pour te dire que ne maanaam sanction yi bëri na et donc ñun il faut que ñu yee suñu membre ci fànn yooyu yëpp ba nga xam ne. maanaam yenn erreur yi du euh, am et seen seen liggéey dina mucc ayib et aussi dinañ a bokk ci liy yee askan mhm. d'accord mais monsieur Faye la dernière question mooy est-ce que gisoo ni euh, problème bi du du manque de formation est-ce que du ci nit ki lay nekk parce que am na ñoo xam ne dañuy liggéey ci site yi ils ont été formés mais bu ñu nekkee sur le terrain dañuy am beneen comportement est-ce que jàppoo ni la mal est dans la morale. te buñ koy yaree ki ni ñu koy yaree moom la yóbbu fépp. ni mu mel moom la yóbbu fépp. Mhm. loolu métier bi mënu ci dara formation mënu ci dara am na ci loo xam ne ci nit ki la maintenant nag pour que ñun suñu wàllu bopp euh, comme ni ñuy wax ñuy def plaidoyer yi di di di leen di sensibiliser leen di xamal. Mhm. waaye am na loo xam ne nit moom bu ko xasee ba mel moom c'est que ni mel na ko ba pare kenn mënu ci dara. très bien. tey ci suba gi ma fàttali ni gan gi moo nekkoon uh, Ibrahima Lissa Faye journaliste blogueur uh, nekk njiital uh, presse afrique point com moo jiite it appel di kuréel gi nga xam ne moo ëmb ñi yëngu ci wàllum presse en di appel jaajëf ñu yendoog jàmm